ni baali baal de faramaare le ca Grand Théâtre bala baax ndeysaan tey naka ngeen waajee open press bi waaw waajo comme nan waaj rek ñaan yàlla may ndam le premier janvier genre mais waaj waaj wuute ak Abissa waaw hmm. tey naka ngeen waajee li nga xamante mooy seen mbër bi di Modou Lo mu war a daje ak le premier janvier euh, Boy Niang waaw waajal comme nan waaj yéen ko may bis la rek mu taroon bis le premier janvier incha allah lu mu guddi guddi guddi guddi roi parce que lay fan dégguma lu mu guddi guddi guddi roi bi parce que lay faan incha allah loolu amul si sëñ ngeen ko wax bu ngeen ko bu ngeen ko wér si si ñaan wala si lan si bëre ko teg ñu fa ko teg ngeen ko teg ñu fa ko teg si ñaan ngeen ko teg waaw le premier janvier ndam ni fi lay faan incha allah bi naka la war a mën a jeexee sëñ bi dañ koy duma daan ko combat bi gaaw lay nekk dañ koy duma ko le premier ñoo ko moom couronne bi ko de roi billaay walaay wa taala fi lay fanaan parcelle. yéen pare goo leen si li nga xamante ne moo di roi bi. Franc da see war a foo Franc da see war a foo xale yi parcelle foo si nañu yàlla dafa jar rek ba le premier janvier incha allah lépp dina leer waaw le premier janvier lépp dina leer incha allah. guddi guddi parcelle la. guddi guddi roi bi parcelle lay fanaan a baax rek. mais Masila gis fi Sa Touba. coalition boobu ngeen def lan la. ñoo roi des arènes ñu maaraay. Eh? ñoo si roi des arènes. dégguñu waxaat ñun ñoo roi des arènes ñu maaraay. yow monsieur le ak Sa Touba yéen a roi des maaraay. Mawlo mooy roi des eh, arènes. ñoo roi des arènes ñu maaraay. def laa bëgg la ñu ko ñàkk. Ah. ñun ñoo lamb buñ gis lamb soo gënee Sa Touba lamb jëlee sëñ Mawlo jëlee sama si la. da nga ko dégg ah. le premier incha allah rek Mawlo dina daan Boy Niang seen adversaire nee na jooy jeex na de. bilaay day jooyaat. waaw looy wax nii. day jooyaat de jooy jeex na. est-ce que ñaari adversaire yi gisoo ne am nañ différence comme que li ki nga xamante ne mooy Modou Lo sax waxoon na ko mu ne bërek bërek Ama Baldé moo gën a yomb bërek ki nga xamante ne mooy. loolu wax la rek wax la rek dégg dégg dégg nga laaj wax la dégg dégg nga laaj le premier janvier seetu teel a lan jeudi ay fan moo fi def. lundi la kay lundi la kay. waaw seetu lii leer ñu ne la incha allah boo ñëwee mu la dina ko duma daan ko bu soobee yàlla. mais combat bi ñaata minutes lay am. du yàgg ñun su gaawee baax na su yéexee baax na waaye guddi guddi waa Paso lay fanaan. mais est-ce que duma Boy Niang dina yomb. Boy Niang moom ñu ne moo dàq si làmb kenn mës a dóor mës a dóor kenn mu taa wala mu daan le premier seetlu ba le premier incha allah. sëñ bi combat mun na jeexee kaw. aw lu su mun a xelal rooy Paso lay fanaan. billahi wala wa taala ñun am nañu jàmm rek. sëñ bi bakkan ngeen di seen noonu mu taxaw ak Papis ndeysaan gi noonu Zé Makan moo taxaw ak waaye maa ngi seen ma si la ak sëñ Mor Makan mooy dem Makan ma ngay ñibbi joxe na dernière consigne yi sëñ Mor ak ki nga xamante ni moo di Papis lonkoon nanu ndeysaan masi ñëw na fekk si leen Mara Modou yaa ngi noonu dégg ngeen léegi lu mu wax nee na ñoom ñooy roi des mara marabu yi ndax Modou Lo mooy roi des arènes mi ngi noonu alliance neex a faral dimanche tey moo def open press fii ci stade municipal Parcelles

Yes, yes, micro microphone. am bu am kóllëre la kii bu am kóllëre ba tey gars yi jël nañ ko ba yàgg na ñu koy seet yàgg na waaye moom nee na moo di récolté ci lamb moo di récolté ci lamb loolu mooy kóllëre te loolu moo jafe ci réew mi loolu moo jafe ci réew mi wallaay ndeysaan bilaay lu jafe la ci réew mi mu ngi noonu di wuyu téléphone mu ci bagage yi kii yàgg naa indi Balla Gaye yàgg naa indi Balla Gaye yàgg na ko indi ci lamb est-ce que mos a indi Gris Bordeaux sax waaw waaw dafa mel ni Gris Bordeaux tamit mos na bokkoon na ci ñi indi woon Gris Bordeaux na indi Gris Bordeaux ndeysaan waaw jour ba mu mën a ak moom mu la di break ama seen waaw comme du gis jëlaam mu daanu waaw mu daal per njuga fii la fii la ama seen daanoo ndeysaan lamb yéeme na nga ne leen dégg ñim àndal ñu kooku soble sa bool bi faramaare bu la ko kenn nettali bande faramaare bu la ko kenn nettali le 31 décembre ca Grand Théâtre bala